d' ma ngi lay nuyu bu baax di nuyu ñi nga àndal ñëpp di sant yàlla d' bu baax di wax ni euh, comme ni nga ko waxee je pense euh, ñu ngi ci quelques jours ci wàccuwaay yi pour jàkkaarloog équipe bu San Pedro bu Côte d'Ivoire waaye di wax ni alhamdulilah rabbil alamin dolli sant yàlla bu baax ñu ngi ci bu baax xale yi ñu ngi ci bu baax ñu ngi concentré wu ñu ngi liggéey conscient lañu xam ñu leen di xaar te comme li amoon rek moo amaat je pense que ñun ñooy njëkk recevoir premier match bi donc loolu déjà loolu xam nañ ko ci des mooy comme ni ma ko waxee ñaan yàlla rek bés bi ñëw si jàmm xale yi dara bañ leen jot ñaan leen ñaan yàlla ñu am wérgu yaram et puis ànd ak état de forme bu baax comme ça ñu mun def liggéey bi nga xam ne moom la xaar si ñoom mooy ñoo gëm a fii largement parce que qualification je pense soo ko bëggee am sa dëkk ba pare nga war a assurer je pense que peut-être bi passé gagné nañ 3-1 mais jël nañ ci bii boo xam ne neexuma métti na ma woon mais je pense que buñ ko mënoon éviter moo gën je pense que conscient nañu liggéey ngi liggéey parce que daanaka presque pare na mais comme ni ñu koy wax rek ñu ngi ci période d'affûtage bi di régler encore ak xool li nga xam ne lañ koy yokk lañ koy yokkee encore ci équipe bi pour gën a am doole am taxawaay bu baax comme ça ci bésu match bi incha allah ci kattanu yàlla ñu géem a gagné. mais yow gis nga ko gis nga ambiance enthousiasme bi am ci équipe bi je pense que li nga tund tey séance semaine journée entraînement bi yow sax bu ma la ko waxul war nga ko gis gis nga ambiance de groupe bi enthousiasme bi booy am je pense confiance bi booy am mais nag ak humilité ak ñu wax yëpp ci liggéey lay xewee. parce que je pense que ni match kenn du ko gagné te joué goko match duñ koy gagné ci biir terrain lañ koy gagné donc comme may wax rek ñun match coupe d'Afrique, le la coupe CAF la donc ñun amna ñu chance de recevoir aller je pense que jour yi liggéey nañ ci état d'esprit bi ñu ngi ci bu baax conscient nañu parce que chaque jour rek avant dara prise en main bi ci loolu pendant 30 minutes dama ci aborder waxtaan ak ñom ils sont conscients je pense que li ñu xaar rek moy ñaan yalla fi ak bés bi dara bañ ci xew ñëpp am wér yaram am jamm et puis ñu mëna a ak waaji def suñu liggéey inshallah Bah là, la équipe la boo xamante depuis quelques années quand même ñu ngi liggéey championnat Côte d'Ivoire ñoom dominé nañ ko tuuti quand même sur le plan africain ñu ngi góorgóorlu di liggéey di yokk doole pour géem a comme équipe yi ni ñu ambition bëgg a je pense que ni am na constance quand même si depuis quelques quelques années ci éliminatoires mais ba léegi nekkagul au diapason mooy nekkagul ci coupe CAF yi ci phase de poule yeeg quoi mais je pense que ñun on est conscient déjà on sait que ce ne sera pas un match facile ndaxte Sénégal Côte d'Ivoire mosuñu am jongante bu yomb donc loolu déjà aada la culture le bu yàgg déjà xam nañ ni jogante bi dina metti mais quand même ñun ñu ngi liggéey ñu ngi def li ñu wara def xam nga concentré wu xam nga gëna appliquer wu devant le but comme ni koy waxé pour que jour bi inshallah allah ci kàttanu yàlla ñaan yalla suñu borom ñu géem gagner largement fi bala ñi dem fofu mais fi ñepp tolo doole football amatu équipe bu ndaw yow da ngay xol léegi équipe nationale A bi bu démé ay euh, Guinée Bissau diko ko 2-1 wala 2-0 amne football avancé na Mauritanie bi légui nga xamante amna am na ay jamono six cinquante wala 7 légui Mauritanie mu ngi dem di Coupe d'Afrique di bokk di dóor ay équipe bi mag donc aduna mo demee noonu le football évolue nit ñee ngi liggéey parce que kenn la watul ñepp nga gëm ñepp nga a liggéey fu ne ni ñepp nga ngi mettre les moyens ñepp a wu yok doole ñepp nga ngi liggéey infrastructure yi mu ngi ci dëkk yépp je pense que li ci am solo dal moy 50 50 le match bi ça se jouera sur le terrain li ci am solo moy ñu conscient ñu lucide ñu am humilité ñu xamné fi lañu wara gagner pour qualifier parce que sa dëkk nga mëna gagner pour qualifier et puis ñu gëm def l'essentiel d'abord à Dakar, ici dans notre pays, avant que nous ayons nous sur le tour. Quoi, un peu mal au dos comme nous football ak blessures parce que si on di daanu di mbëkk duel mënul blessures quoi football mais bu li jour bu essentiel l'équipe. ci équipe bi l'apport ni Et apport bi nga ne andi comme ça mu mën reprendre reprendre groupe parce que nous la entraîné ah. parce que démb entraîné na bu fin ba après ci la génn mais démb daal la toog parce que toute la journée entraîné wul moom je pense que c'est pas méchant peut-être fii ak suba mun nañ ko récupérer waat incha allah loolu la ñuy ñaan yàlla suñu borom comme ça ñu tàmmale ñu continuer suñu liggéey bi nga xam ne tàmmale nañ ko depuis quelques jours incha allah mais man chance bi gëm naa ko depuis bi ñu demee bi ñuy waxee ni jaraaf day Afrique parce que gëm-gëm ma toog fi ma toog moo tax may je pense que Jory dirigeants gëm-gëm sénégalais parce que tamit bëgg sénégalais yi ñu phase de poule bëgg entraîneur bi loolu dirigeants yi ak joueurs loolu ci loolu liggéey ci assez mais comme nous wax le football est toujours jàngat toujours encore très la parce que chaque jour war na am équipe moi je pense que c'est un ami Nous ñuy quoi lu ci encore nous ñu comme ça mercredi ci nous l'essentiel des choses yéem a def suñu kéttulaay kattan fii pour géem a gagné dugal ay bii ba pare bañ a encaissé pour nga mën a voyager tranquillement et sereinement dëkku jàmbur pour dem décrocher sa qualification foofu incha allah ñetteel ñetteel dem naa ko port ma dem yàlla dimbali ma ma gagné AS Douanes bu Togo après ma gagné deuxième tour USMA Alger ma dem troisième tour ASEC moom a éliminé woon ak jaraaf yàlla dimbali na ma bi ma ñëwee yaa sama yaa deux ans presque bi ñu demee gagné nañu aussi premier match bi ay AS ki bu Togo allez mu gagné retour ñu gagné ko tiro bi après ñu gagné Wydad Wydad gagné ñu 2-0 ñu gagné ko 3-1 hein. après ñu tok deuxième tour bi mais je pense que bi ñu après verser ñu coupe CAF Berkam mo ñu gagné moo ñu moom la gagné 2-0 fi mu gagné ñu mais bo xolé Berkam ak Wydad ñoo final kenn ki Champions League kenn coupe CAF donc woné na ni Jaraaf mu ngi mag ñaar ki bi nga xamné ne gagné na leen fii largement parce que ñoo final donc lolu woné na ni amna jangat biñ ci am bu ñu gor gor lu a conscient am humilité ñu liggéey ñu gëm suñu bop et puis ñu nekk maître à domicile parce que le football boo bëggee di avancer wala di gagner di franchir étape il faut nga gagner sa dëkk et je pense que lolo, je pense que xale yi ñu ci ciy ñu ci waxtan ak ñom ils sont conscients buñ défé defee li ñu defoon contre euh, euh, nu tuddati Canopiar gagner fi je pense que di nga mën voyager tranquillement Que loolu moo ñu war amul benn xalaat bu dul boobu loolu rek mo wara nek inshallah